waaw salaamaaleykum téléspectateur Ladoum TV ñoo ngi leen di nuyu di am mbégte ak contentement taxaw fii nga xamante ni sii mooy géew bi fii nga xamante ni si fii la ndaanaan yëpp jaar nañ fi ki nga xamante ni si mooy magistrat jaar na fi booy séeréer jaar na fi Nations Unies jaar na fi ki nga xamante ni si moom la ñuy wax Grand Rane jaar na fi ki nga xamante ni sii moom la ñuy wax Siweeru jaar na fi ki nga xamante ni sii mooy Baxdaat jaar na fi ki fi mujjee jaar mooy Aldibo ki nga xamante ni si moo fi nekkoon champion tey ñu nekk ki nga xamante ni si moom la ñuy natt mooy concours maal tey ñoo nekk nii ni ñuy nattee maal nag ay maal adulte lay doon maanaam bi nga am 3 4 5 6 ans ñoom la ñuy natt tey naka lañ leen di nattee dañ leen di peser bu ñu leen peser ñu teg leen ci bascule bi ñu jël seen poids bu ñu jugee foofu ñu yóbbu leen ci njatt lay leer bi njatt nay leer bi nag nan lañ koy utiliser dañ leen takk bu ñu leen takkee dañuy jël seen hauteur au garrot bu ñu jëlee seen autour ogaro pare bu ñu paree dañuy jël seen LCS mooy longueur cervico-sacrale bu ñu paree ci loolu dañuy jël seen TP après bu ñu jëlee seen TP nag ñu toog xaar li nga xamante ni si mooy macération yi résultat macération yi moom la ñuy xaar ànd ak seen télévision Ladoum TV parce que tey jury yi nar nañu am problème li ñu nar a amee problème mooy axlu élevage gars yi ñu liggéey parce que bu ngeen xoolee sama ginnaaw maal yi fi nekk oxo sa xol day sedd ay xar am doole ay xar yu am dayo ay xar yu gudd te njool macha allah nga xam ne daal élevage ku yokkul da ngaa wàññi ñu ànd ak yéen nag seen télévision Ladoum TV benn par benn génne leen xar yi ngeen xam ne daal du ay foo ay caaxaan. waaw téléspectateur Ladoum TV yéen a gisandoo benn maal bu rafet a ngi nii maal bu doy waar champion kii mooy kan. waaw kii mooy directeur. moom ban mu ñaata ban box la jugee moom. mu ngi jugee Thiès. Thiès la jógee téléspectateur Ladoum TV gis ngeen kii cees la jógee tey lan nga nar ak gars yi. ah dañuy ñëw def sa fair play fair play rek. téléspectateur Ladoum TV yéen a déggandoo fair play moom la président Issa wax nga xam ne daal élevage bi du ay foodu ay caaxaan waaw ñu gis si benn huilier ñuul ku ko def robe bu ñuul tubaar fakkaala champion ki mooy kii mooy saa Ndiamour. Sa Ndiamour a ngi nii moom mi ngi jógee ban box ak mi ngi toll si ban mois. mi ngi nekk box 45. âge 30 mois. 30 mois 30 tey lan nga nar fii ci ci géew ah xanaa ñëw rek ñëw rek wane suñu bopp quoi wane suñu bopp wane aussi xar bi. macha allah téléspectateur Ladoum TV nee na day ñëw wane seen bopp ngeen xam ne affaire du ay foo du ay caaxaan champion kii mooy kan. Guy Marius. gi Marius mi ngi jugee ci box ñaata. box 189. moom mi ngi toll si ñaata mois. 29 29 mois. 29 mois kii lu mu nar tey lu mu nar tey Guy Marius. Ah? kii ñëw rek ñu évaluer ko xam lu mu am 29 mois loolu rek lañ bëgg. téléspectateur Ladoum TV 29 mois pour ñëw pour ñu évaluer ko xam lu mu war a am ñu joxe ay mensuration nga xam ni ak lu élevage ah tubaar fakàlla bu ngeen xoolee Guy Marius sa xool day sedd nga xam ni élevage ku yokkul da ngaa wàññi. allez Guy Marius ànd ak seen télévision Ladoum TV. téléspectateur Ladoum TV ba tey beneen champion ngi nii kii mooy kan. kii mooy Ndiol Maris. Ndiol Maris moom mi ngi jugee box numéro ñaata. box numéro 133. mi ngi toll ci agem ñaata. toll si 34. 34 kii tey lu mu nar fii ci ëtt bon moom moom dafa bëgg wane li baay bi defoon rek parce que moom baay bi. Euh, baay mooy Koromak waaw. téléspectateur Ladoum TV kii nekk doomu Koromak nga xam ne daal affaire yi moom macha allah ku yokkul da ngaa wàññi te élevage gaa ngi yokk gaa ngi wàññi yokk yokk macha allah ah ba tey benn champion ngi nii téléspectateur Ladoum TV oho il est très ki mooy kan. kii mooy Samouraay. Samouraay xanaa moom day day karaté. waaw mooy euh, euh, suñu waaye lañ ko tuddee baram jaasi yi. sëtëtëtëtët kii ay jaasi day corote kii mi ngi jóge ci box numéro ñaata. 137. ñaata mois la am âge man ci 4 ans. 4 ans samouraay. tey lu mu nar fii samouraay. waaw yëngal rek yëngal rek kii mooy samouraay forom bawal yëngal rek yóbbu ndam li Touba daal moom lañ bëgg. macha allah que le meilleur comme ni ko président Issa waxee fair play que le meilleur mi ngi noonu téléspectateur Ladoum TV xam ngeen ne lii du ay foo du ay caaxaan macha allah ànd seen télévision Ladoum TV bu ngeen xoolee supporters yi oxo bu ngeen xoolee amateurs yi supporters yi ñi ngi taxaw tribune baa ngi fees del macha allah nga xam ne daal téléspectateur Ladoum TV 14e édition Saladam du ay fo du ay caaxaan. waaw gis nga de téléspectateur Ladoum TV xoolal xoolal ma caméraman yi xam nga ni ñii macha allah ñu ngi liggéey liggéey bu extraordinaire xam nga ni ah ba ba xoolal ma réseaux sociaux yi xam nga ni réseaux sociaux yi ñii duñu ay foo duñu ay caaxaan tey bu nga xamante ni si waa diaspora bi ñu ngi mën jot ci affaire yi ki nga xamante ni si mooy Chérif. macha allah nga xam ne moom mi ngi liggéey liggéey bu rafet liggéey bu extraordinaire waa amanda beneen champion buy ñëw oxo amanda beneen champion buy ñëw macha allah nga xam ne kii du ay caaxaan Chérif macha allah téléspectateur Ladoum TV oxo ñu taxaw ak ak ndaaraan bi nga xamante ni si mooy Chérif Chérif tey naka nga gisee champion yi taxaw fii tey. mais contact ak mbégte waaw parce que sonal beneen niveau la mais foo see maal yi alatu ba ñu génnee da ngay stade bi dafa fees du ay caaxaan xam naa nag tey loxo dara dara gémmin. macha allah. maa ngi xaar record daanu fi nekk am naa ci yaakaar ah, téléspectateur Ladoum TV loolooy kaddu yi Chérif bi nga xamante ni si mi ngi liggéey liggéey bu extraordinaire ci élevage bi macha allah man jury rek laa yërëm parce que yii maal yii macération ñu yore lii du ay fo lii du ay caaxaan ànd ak seen télévision Ladoum TV. ba tey téléspectateur Ladoum TV beneen champion mi ngi nii kii mooy ah ma kii mooy Boy Tukulóor. Boy Tukulóor xanaa moom Tukulóor la Boy Tukulóor mi ngi jógee ban box ak ñaata mois la am. ah mooy ci box 73. mooy ci 33 mois. 33 mois kii mu nar tey. ah ñu ngi waaj rek quoi ah, donc di wax gars yi rek def ndànk-ndànk rek. nee na ndànk-ndànk step by step xam ngeen ne affaire yi du ay fo macha allah ànd ak seen télévision Ladoum TV mooy suñu télé. waaw téléspectateur Ladoum TV comme niñ leen ko waxee. ñu ngi fi nga xamante ni sii ñu ngi ci ëtt bi ñu ngi ni jàkkaarloog nattukaay bi nga xam ni macha allah fii la ñuy nattee xar yi fii la ñuy jëlee seen hauteur fii la ñuy jëlee seen LCS fii la ñuy jëlee seen tepe nga xam ni lii du ay foodu ay caaxaan jur yi fii la ñuy taxaw ñu dugal xar mi ci biir yeew ko takk ba mu dëgër këcc jël niveau bi niveau te ko. yéen a gisandoo foofu nga xam ni moom lañ leen di wan mooy fi ñi nga xam ni fa la ñuy takk xar bi béyjeen yi foofu lañ koy takk nga xam ni xar bi du mën a yëngu. waaw ci biir xar bi du mën a yëngu nag foofu lañ koy takk ba nga xam ni xar bi naan sàtt sàttaaral taxaw na jodd ñu doog a commencé léegi beneen bi nga xamante ni si moo nekk ci biir mooy weñ boobu ngay gis dañ koy taf ci dënn xar bi képp ko pincé ko mu jóg foofu la xar bi nga xam ni du avancé dina arrière mais du avancé maanaam foofu fa lay xar bi di équilibré pour ci kanam mën a tolloo nga xam ne bu ñu jëlee équerre bi teg ko ci fa lay niveauté nga xam ne daal ah macha allah gars yi ñu ngi liggéey liggéey bu extraordinaire waa Adam duñu ay caaxaan duñu ay foo waaw ñu ñëwaat ci fi nga xamante ni si mooy centimètre bi nga xamante ni si moom la ñuy jëlee hauteur bi moo nekk noonu ci kaw foofu la ñuy wàccee di wàcce di wàccee ba mu tegu ci kaw garo bi bu tegoo ci kaw garo bi nag waa ji validé ne d'accord na fekk xar bi taxaw na normal équilibré na taxaw normal amul bougé wul deful dara ñu wàccee nag kaan bi ba mu dal bu dalee ci garo bi waa ji validé d'accord na ñu validé ñu noté téléspectateur Ladoum TV gis ngeen ni mu taxawee encore foofu ñu dellu si waat ci ginnaaw mooy fi équerre bi nekk fi nga xamante ni si fa la ñuy taf dënn bi foofu la ñuy jël mooy fi ñu bind adam bi foofu nga xam ne fa la long euh, LCS bi dem déparé ca kaw bopp ba wàcc dem ca cat ba cat ba fële nga xamante ni si foofu la ñuy nattee nga xam ne mooy car geen gi fi premier yax bi commencé ci geen gi foofu la ñuy takk marqué ko nga xam ni centimètre bi day commencé ci saxu béjjén bi daal di wàcc diggante ñaari béjjén yi fa lay commencé daal di wàcc nag dem moom moo tax gaay naan centimètre baa ngay daw centimètre baa ngay daw nga xam ni daal ah macha allah te xar yi nar nañ fi génne ay macération yu extraordinaire xar yi nar nañ fi génne ay macération terrible yu terrible yu doywaar fii nga xamante ni si mooy CCS mooy suñu quatri euh, quatorzième édition Saladam 2023 téléspectateur Ladoum TV nga xam ne affaire yi du ay fo du caaxaan. bu ñu ñëwaatee fi nga xamante ni si moom la ñuy peser xar yi foofu mooy bascule bi fa la ñuy dugal xar bi mu jaaree ci bunt bi dugg ci biir taxaw. numérique baa ngi noonu taxaw fi nga xamante ni si mooy génnee euh, li nga xam ne chiffres yi nga xamante ni si moom la xar bi am muy poids bi foofu la ñuy nattee poids bi. nga xam ne daal ah macha allah gis nañ fi xar yu am ay cent cinquante cent soixante cent soixante dix cent quatre vingt kon nga xam ni ah <laughs> élevage bi man damay ragal xar yi dem ci ay deux cent parce que xar yi ni ñu mel macha allah élevage bi ku yokkul da ngaa wàññi waaye laadum bi li gars doon wax njool gudd rëy dañoo gën a rëy. ànd ak seen télévision Ladoum TV mooy suñu télé. waaw téléspectateur Ladoum TV li nga xamante ni si mooy bureau Adam bu bees bi ñu organiser seen première sortie mu nekk euh, quatorzième édition Saladam ñoom ñoo def innovation bi dafa mel ni làmb tey ñoom dañu organiser lu mel ni làmb jël ay saaku maanaam bu mbër yi bëree bëree ba yegg si saaku yi ñu ne mbër maa ngi sa saaku ya yéen a fekki saaku yi waaye saaku yi fekkewu leen waaye tey waa Adam dañoo ñëw indi saaku yi ci xar yi. tey boo xoolee dañoo def enceinte bu bu rafet jël machine bi teg ko ci digg bi kon xam nga ne kenn du taxaw ci environnement yi kudul ñi nga xamante ni si ñoom ñooy ñiy natt waa jury bi kon xam nga ne daal ah <laughs> gars yi liggéey nañ de ku yokkul da ngaa wàññi te ñoom dañoo yokk. waaw ki nga xamante ni yéen a ngi koy gis sedd bi lay waajal xam nga ne kon fii <laughs> coach na coach bi nga xamante ni si mi ngi tegle yokkaat na beneen <laughs> ah, macha allah pour lan protéger sedd bi ndax fii. dañ fiy nekk ba deux heures du matin trois heures kon il faut nga préparer wu ba dëgër takk ba fees del waaw macha allah nga xam ne daal sedd bi du la jaar ci benn côté ànd ak seen télévision Ladoum TV. waaw téléspectateur Ladoum TV gis ngeen maal bi macha allah xar mi rafet na kii mooy kan. kii moom mooy Teranga Junior. Teranga Junior mu ngi jugee ban box ak mi ngi toll si ñaata mois. am na vingt neuf mois mi ngi jugee box 40. waar fa kàlla ki mooy Teranga Junior kii tey lan la nar fii tey. non kii dañuy ñëw xool macération yi rek waaw yaa ma gën a xam. sa da ngaa ragal de dañuy ñëw xool si macération yow est-ce que duñ la dóor nga wacc tey. <laughs> no mooy loolu. amul ragal rek sëñ Fallou. Eh, nee na sëñ Fallou Alaaji Fallou nee na amul ragal amul seral ànd ak seen télévision Ladoum TV bu ngeen xoolee tey xar yi rafet nañu xar yee ngi yore ay macération yi extraordinaire tey jury bi comme li may wax jury bi daal laa yërëm parce que oh natt bi natt bu garaaw lay doon. dinañu génne ay macération yu terrible ay macération yu extraordinaire nga xam ni ah élevage bi ku yokkul da wàññi te gars yi yokk nañu yokk nañu niveau bi niveau bi gën na jóg macha allah. waaw téléspectateur Ladoum TV comme niñ leen ko waxee rek macha allah dugal nañu am na benn maal bu njëkk ñëw ñu ngi koy dugal ci bastul bi pour peser ko waaw fii daal xam nga ne affaire yi moom yombul affaire yi dana neex affaire yi dana ala dawme waaw macha allah xar yi rafet nañu waaje ji na ko pour mu dugg xar mi daa bañ ah buux nañ ko ba mu dugg mu nga ca biir moom day bañ gaay yi jël poids am waaye tëj nañ ko nag loolu mooy doo génn tëj nañ la loolu mooy doo génn ànd ak seen télévision Ladoum TV xar yi rafet nañu xar yaa ngi nay xar yaa ngi belli macha allah waaw kooku mi ngi jóge ci box numéro 137. waaw mi ngi noonu ngi noonu di daagu ndànk waaw mi ngi noonu di daagu ndànk waaw dugg na ci biir mi ngi noonu di daagu ndànk waaw ma nga noonu di dem ñu ngi koy yóbbu ca bastil ba pour poser ko ñu ngi koy yóbbu ca bastil ba pour poser ko ah macha allah affaire yi rafet na affaire am na solo waaw ñoo ngi noonu di ko dugal waaw dugal nañ ko tëj nañ waaw waaw ñu taxaw xool ko dugal nañ ko ca bassil ba ñu ngi koy pesé waaw macha allah waajaa ngi koy puus pour mu taxaw bu baax tubaar fakal la xar yi rafet nañu ñu ngi jël poids bi tubaar fakal la macha allah. waaw am na benn champion bu doon dugg si moom dafa yéex a ñëw waaye dugg si na ànd ak ay supporters am supporters yaa ngi way naan ko di ko wayal naan leen bojo bojo yi seen baay ñëw na. waa mi ngi noonu doog a yegg si mi ngi taxaw ca ginnaaw waaye moom moom mujjee ñëw nag waaye moom dafa ñëw ànd ak riiram waaw dafa ñëw ànd ak riiram booy ba yëkkati na loxo ca kaw waaw macha allah booy ba yëkkati na loxoom ca kaw booy baa ngi def tengaade def caaya waaw def na caaya a ah, booy ba sukk na tubaar fakalla booy ba sukk na supporter yaa ngi koy wayal naan leen bojo bojo yee seen baay ñëw na ah waaw kon de bojo bojo yi waaw mi de te man fii dama fee gisul bojo fii ay ndaanaan rek a fi nekk macha allah supporter yaa ngi noonu ne ko supporter yaa ngi noonu di ko wayal di ko tëggal naan ko bojo bojo yee seen baay ñëw na mu ngi noonu ak caaya ji def tengaade macha allah ah téléspectateur Ladoum TV 14e édition Saladam bii 2023 ah kii du ay foo kii du ay caaxaan. ba tey am na beneen maal buy dugg ñu ngi koy dugal ci biir bastil bi pour peser ko macha allah. mi ngi jógee ci box numéro 183 oh dugal nañ ko tëj nañu waaw dugal nañ ko tëj nañu taxaw xool nag foo wànnante mu mujjee ki gëtam mi ngi buus buux barrière bi pour bëgg génn nee nañ ko doo génn toogal fii ñu posé la nee nañ ko doo génn toogal fii ñu posé la ah macha allah waaw mi ngi noonu ngeen gis ko ne ko bastil baa ngay daw poids baa ngay daw macha allah. téléspectateur Ladoum TV xar yi xar yi am nañu doole xar yi am nañuy macération macha allah waaw macha allah borom rob bu ñuul baa ngi noonu. mu ngi jóge ci ngi jóge ci box numéro 145 ñu ngi koy buux ñu ngi koy buux pour dugg ci pour mu dugg ci biir ñu dugal ko ci biir jël poids am ma ngay bañ ñu ngi koy forcer di ko jaay doole waa ji yëkkati na ko ah dugg na tëj nañu waaw na ko yow doo génn waaw na ko taxawal fii ña ngi koy tekkil uh, bumbu xonq bañ ko takkal ña ngi koy tekkil tekki nañ ko bàyyi nañ ko moom kese borom xar maa nga ca ginnaaw taxaw juré rek a fa des waaw poids baa ngay daw poids baa ngay daw basil baa ngay daw waaw basil baa ngay daw oh téléspectateur Ladoum TV macha allah il est très beau allah. xam nga ni lii du ay foo ay caaxaan xar yi fi mu nekk nii seen niveau dafa kawe seen niveau ma nga ca kaw ma nga ca kaw ña nga 17e étage nga xam ni macha allah xar yi toppatoo nañ leen basil baa ngay daw waaw ma ngay daw oxo basil baa ngay daw ma ngay wane lu mu am ah, ma ngay wane mu am macha allah oxo oh téléspectateur Ladoum TV yéen a gis mi ngi noonu macha allah fii lay xewee fi nga xamante ni si mooy seen chaîne télévision Ladoum TV nga xam ne danga koy am live and direct ngay get di check nga xam ne daal Ladoum TV ah Ladoum TV daal du ay fo du ay caaxaan waaw am na bo benn buy ñëw mu ngi jóge ci box numéro 133 ñu ngi koy womat mi ngi dox ndànk di ñëw. borom a ngay ree borom a ngay tekki collier bu xonq bañ ko takkal ñu ngi koy buux ñu ngi koy buux ma ngay dugg ah dugg na dugg na tëj nañu waaw comme ma nga noonu ca biir gaa yaa ngi xool pour mu taxaw normal pour gaa yi mën a jël poids bi ngi jël poids bi waaw poids baa ngay daw oxo baa nga noonu yéen a ko gis ñoo ko gisandoo téléspectateur Ladoum TV ma nga noonu waaw yéen ko gis mi ngi def 100 waaw mi ngi def 100 nangam waaw macha allah ñu ngi koy génnee waaw moom jël nañu poids ba pare ma nga noonu di dem. waaw macha allah am na kenn ku doon nekk noonu di ñëw waaw 140 189 la jóge box bi xar bi ñu ngi ko dippee ki nga xamante ni si mooy Guy Marius Sagna waaw macha allah mi ngi noonu ñuy dugal nga noonu nga noonu ñu ngi koy buux ah dugg na waaw tëj nañu bunt ya ne ko doo génn nee na fii laay jaar ñu ne ko doo fi jaar. ko fi laay jaar ñu ne ko doo fi jaar tëj nañu nee nañ ko ràpp tëj ci biir kii du génn de waaw poids baa ngay daw poids baa ngay daw poids baa ngay daw cent ya teg na ne ko cent ya teg na ma ngay laal ay trente ay trente ay trente neuf ma ngay laal ay trente huit ma ngay laal ay trente neuf cent ya teg na waaw ma ngay laal ay cent trente huit ay 139 waaw ma ngay laal macha allah poids baa ngay daw mi ngi ci 140 138 149 139 lay kiiwee waaye ba léegi jury ñoom ñooy ñoom ñooy noté ñoom ñoo yor dernière décision bi jury yee koy joxe ñoom ñi nga xamante ni si ñoom ñooy noté. mi ngi jógee box numéro 73 mi ngi noonu ñu ngi koy woomat waaw moom daa nangu waaw waaye ba mu ñëwee ba ci buntu ba. xaw na siisu waaw waaye dem na dugg na dugg na dugg na waaw waaw supporter yaa ngay yooxu dugal nañ ko ña ngi koy tekkil ña ngi koy tekkil collier bi macha allah ña koy tekkil collier bi waaw ma nga noonu poids baa ngay daw ne ko poids baa ngay daw basil baa ngay daw ma ngay def 100 waaw ma ngay def 100 diggante cent quinze cent vingt trois cent seize waaw taxawul normal ñu ko taxawul normal waaw mi ngi def cent vingt cinq cent vingt quatre waaw yéen a gisandoo kooku muy Baye Caaya Baye Caaya moo indi moo indi maal bi borom tengaade bi moom lañ doon wayal sànq naan bojo bojo yi waaw poids baa ngay daw na ko poids baa ngay daw gannaaw ba dugal nañ ko poids baa ngay daw ma ngay laal ay 130 132 waaw ma nga noonu ma ngay laal ay 130 macha allah am na beneen maal bu ñëw oxo ji daa takk kaala waajaa ngi mel ni naar gaa yaa ngi koy yoon bi muy jaar téléspectateur Ladoum TV yéen a ko gisandoo maal baa ngay noonu di ñëw moom moo mujjee ñëw waaw moom moo mujjee ñëw ñu nekkoon 10 maal waaye am na boo xam ne ñëwul xamuñu lan moo tax ñëwul waaw kii moo nekkoon neuvième maal bi nga xamante ni si mooy doog a yegg si noonu booy bi sukk na di ko raay ne ko booy bi sukk na di ko raay macha allah yaa ngi ko wër gaa yaa ngi ko dar ah indil nañ booy bi bant indil nañ booy bi bant booy bi indil nañ ko bant waaye mi ngi noonu di dem ma nga noonu di dugg ma nga noonu ma nga noonu ñu koy yóbbu muy dugg waaw mi ngi nekk box numéro SN1 waaw ña nga noonu ñu koy dugal ci poids bi ci ci bastil bi ña nga noonu di jël bi ñu koy buux ma ngay siisu ngay bañ ngay buux dugal nañ ko dugal nañ ko ci biir ñu ngi koy tekkil téere ba lu xonq lañ koy tekkil ca loos wa nga noonu waaw téléspectateur Ladoum TV yéen a gisandoo ma nga noonu ñu ngi koy raay ñu ngi koy raay ndànk ñu koy raay waaw machine baa nga noonu ma noonu laal ay cent quarante ma ngay laal ay 140 waaye ba léegi taxawul normal waaw ma ngay laal ay 150 157 macha allah nga noonu nga noonu nga noonu. mu ngi laal ay cent 142 147 nga noonu ngay laal ay cent téléspectateur Ladoum TV. gaa yi ñuy fàttali rek ne SN1 nekk ci machine bi. waaw téléspectateur Ladoum TV comme liñ leen expliqué woon sànq comme liñ leen ko waxawee woon faram fàcceel leen ko waaw am na benn maal bu yéeg ñu ngi noonu waa jury bi ñu ngi taxaw maal bi yéeg na ne ko xar ma yéeg na comme niñ leen ko waxee woon dañ koy takk ba mu dëgër pincé ko ba mu jóg nga xam ne day taxaw normal waaw ñu jël équerre bi teg après nag euh, wàccee kaan bi fekk xar mi nag taxaw na normal ba waa ji validé borom xar mi nangu ne taxaw na wala superviseur bi nangu na ne taxaw na après nag ñu doog a wàccee bi te ko ci garo bi ñu xool lu mu am bu ñu paree ci loolu ñu jël centimètre bi dawal centimètre bi ba ca cargeen ga ba ca cargeen ga ca saxu geen ga fa mu commencé waaw bu ñu paree ci loolu ñu jël TP bi nag mooy tour de poitrail bi waaw gis nga ñu ngi noonu di ko takk ñu ngi noonu di ko takk ci njatt nay leer bi loolu la ñu tuddee njatt nay leer téléspectateur Ladoum TV ah macha allah ña ngi koy takk waaw téléspectateur Ladoum TV comme ni ngeen ko gisee ña nga noonu di ko yeew ñu ngi koy takk gannaaw ba nañu fi nga xamante ni si fa la teg dënn bi pour mu mën a taxaw nga xam ne du avancé mi ngi noonu takk nañ ko takk baa ngi noonu waajaa ngi xëcc waaw dangal ko ba mu dang ñu ngi noonu waaw ñu ngi ñoddi waaw macha allah xam nga ne lii du ay foodu ay caaxaan am na ku nekk ca gannaaw di ko raay pour mën koo neutraliser gaa yaa ngi noonu di nga koy yeew waaw waajaa ngi jaay doole macha allah macha allah ña koy takk ña ngi koy takk. waaw takk ko takk nañ ko ba mu dëgër mu ngi noonu mu ngi noonu di ko raay pour mu taxaw waa jaa ngi noonu jàpp fi nga xamante ni si mooy saxu gen gi foofu lañuy ñuy marqué pour mën a natt li nga xamante ni si mooy LCS bi waaye mi ngi noonu li ma leen doon expliqué ñu ngi koy pincé ñu ngi koy pincé pour ci dënn bi mu mën a taxaw normal nga xam ne du avancé ca kanam ci ginnaaw rek la mën a arrière waaye mënul avancé ca kanam ñu ngi noonu ñu ngi koy seere gis nga ñu ngi koy seere waaw macha allah waaw nee na ma ngay tëb ma ngay jóg waaw takk bee metti waaye ma ngay jóg waaw yëkkati na benn tànk ba waaw gaa yaa ngi koy jàpp pour mu wàcc waaw ñu ngi noonu téléspectateur u Ladoum TV xam ngeen ni affaire yi du ay foo ay caaxaan li nga xamante ni si waaw équerre baa ngi noonu équerre baa ngi noonu pour xar mi mën a taxaw normal équerre baa ngi noonu pour mën a équilibrer pour ñu mën a wàcce kaan bi teg ko waaw équerre baa ngi noonu waaw téléspectateur Ladoum TV ba tey ñoo ngi ci quatorzième édition Saladam 2023 fii ci si CICES waaw affaire yi ala daw affaire yi neex na féeré cuqur mbuut na macha allah waaye xar ma bañ na waaye xar ma nanguwul taxaw normal mu ngi noonu équerre baa ngi noonu waaw équerre baa ngi noonu ñu jël téléspectateur Ladoum TV wul taxaw benn yoon waaw oh, oh, macha allah mu ngi noonu ñu ngi koy neutraliser pour mu taxaw waaye nanguwul taxaw nanguwul taxaw benn yoon affaire bee yàgg na waajaa ngi koy raay ko waajaa koy raay mhm. mu ngi noonu waa ji summi na gan summi na gan sànni jël na loxoom oh macha allah xar loxo la bëgg waaye ba tey xar mi bañ na ba tey xar mi bañ na ñu ngi koy yëkkatiwaat pour mu taxaw normal waaye tànk tànku gannaaw bi daal lay lay sukk waaw mi ngi noonu takk bi takk nañ ko takk bu dëgër fi mu nekk nii mënatul bouger kanam waaye gannaaw moom mën na ko bouger teg nañu équerre bi macha allah teg nañu équerre bi téléspectateur Ladoum TV macha allah ña ngay wàccee kaan bi ña ngay wàccee kaan ba kaan ba laal na garo ba ko kan ba laal na garoba mi ngi noonu ngeen koy am live and direct waaw en direct fii ci CCS waaw mi ngi noonu deuxième fois baa ngi noonu waaw waa ji day nangu day laajte bu tegee ba pare day laajte yëkkatiwaat na ko tegaat bi mooy troisième fois laajte na macha allah waaw gars nangu nañu validé nañu téléspectateur Ladoum TV ni nga koy amee fii nga xamante ni si mooy CICES mu nekk 14e édition Saladam 2023 waaw ñu ngi natt nañu hauteur au garab bi ñu ngi noonu di di di marqué fi nga xamante ni si fala la bi war a yem ci longueur cervico sacral ñu ngi noonu di ko scotché macha allah ca saxu geen nga la ñuy commencé di ko scotché nga xam ne foofu la. natt bi di yem bi foofu lay yem loolu la ñuy wax longueur cervico-sacrale moom la ñu tuddee LCS centimètre baa ngi noonu dañ koy commencé ca bëjjën ya ca saxu bëjjën ya diggante ñaari bëjjën ya fa lay commencé war a wàcc nag ba foofu nga gis gis nga ko centimètre baa ngi noonu centimètre ba daw na ba foofu centimètre bi daw na ba foofu waaw centimètre bi daw na ba foofu waaw mu ngoog gis nga de yëkkati nañu ñaari yoon teg yëkkati waat ñaari yoon teg Ah, téléspectateur Ladoum TV macha allah mu ngi noonu yëkkati nañ ko tegaat teg nañ ko fa nga xamante ni si fa la ñuy nattee waaw ma nga noonu yéen a ko gisandoo ma nga noonu yéen ko gisandoo ñu ngi koy natt gars taal nañ gars yi taal nañu lumière yi taal nañu torche yi taal nañu torche yi waaw wàccee nañ ko wàccee nañ ko mi ngi noonu waaw mi ngi noonu yéen ko gisandoo tekki nañu fañ ko naan fañ doon marqué waaw ñi nga xamante ni si ñi ngi ñi ngi jubal ci li nga xam ni mooy TP mooy tour de poitrail macha allah yéen a ngi koy am fii nga xamante ni si mooy si sees mu nekk quatorzième édition Saladam macha allah 2023 nga xam ni extraordinaire waaw ñu ngi noonu ñu ngi noonu centimètre bi ñëw na wërale na ko macha allah. ñu noonu di natt TP bi ñu ngi noonu ñu ngi natt TP bi téléspectateur Ladoum TV lii du ay foo te lii ay caaxaan macha allah. noonu di natt TP bi nag waaw natt nañu TP bi waaw ba pare ñu ngi koy tekki ñu ngi koy libéré nag ñu ngi koy libéré nag gannaaw ba ñu jëlee ay mensuration ba pare ñu ngi koy libeere ma noonu jóge bokk si numéro 40. waaw macha allah nekk na xar mu rafet baar fakkal la ànd ak seen télévision Ladoum TV gars yi jël nañu maturation ba pare ma nga noonu di arrière di génn ma nga war a dem nag ca bergerie dem toog noppalu ko ji macha allah waaw box numéro 137 moo nekk noonu di ñëw macha allah box numéro 137 moo nekk noonu di ñëw. waaw kooku mi ngi jógee box numéro 40 moom la ñuy joxe maturation mi ngi am 29 mois. box numéro 40 la jógee waaw téléspectateur Ladoum TV kooku am na 115 point 5 ñetti yoon ci hauteur au garrot bi ñu jublu ci LCS bi nga xamante ni si waaw ci LCS bi am nañu 154 ñetti yoon lañ ko am ci TP bi ci LCS bi lañu am 154 ñetti yoon waaw am nañ ko TP la jël noonu waaw TP bi ñu ngi noonu am cent vingt cinq trois fois lañu am ci TP bi kon kooku mooy maal bi nga xamante ni si moo fi jot jaar waaw ñu ñëw ci poids bi waaw mi ngi am ci cent vingt deux virgule huit kilos waaw kooku nga xam ni moo fi jaaroon waaw waaw ba tey am na beneen maal bu dugg ñu ngi noonu kooku moo juge yaakaar nañ ne moo jugee Bawol waaw mi ngi noonu teg nañu équerre bi waaw ñu koy takk nañ ko ba pare teg nañu équerre bi di xool taxawaay bi naka lañ gisee taxawaay bi macha allah téléspectateur Ladoum TV takk nañ ko ba pare nga xam ne kii ay fo waaw équerre baa ngi noonu ñu jël waaw équerre baa ngi noonu nga xam ne lii ay caaxaan macha allah. ñu war a jël auteur bi ñu ngi xool di vérifier mu noonu waaw mu ngi noonu kaan baa ngi noonu di wàcc ne ko kaan baa ngi noonu kaan baa ngi noonu di wàcc kaan bi wàcc na kaan baa ngi noonu di wàcc waaw waaw ñu ngi noonu di jël auteur yëkkati nañ ko benn yoon ñaari yoon ngi jël auteur bi mu noonu ñetteel bi yoon macha allah téléspectateur Ladoum TV mi ngi noonu di jël auteur bi waaw ñu xool fan la taxawee mi ngi noonu macha allah waaw mi ngi noonu jël nañu li nga xamante ni si mooy auteur bi waaw ñu ngi noonu di natt fi nga xamante ni sii di ko takk fi nga xamante ni sii mooy mooy LCS bi longueur cervico sacral waaw ñu koy takk di ko marqué pour ñëpp mën ko gis da koy am laayfen daal waaw deuxième mâle bi nga xamante ni si moom lañ natt mu ngi am 48 mois waaw mi ngi am hauteur euh, au garrot waaw hauteur bi am na ñetti yoon yi nga xamante ni si 111 point ñu dem ci LCS bi ci LCS bi am na ñetti yoon 159 macha allah tour de poitrail la ñuy wax noonu 136 la am 136 la am ñaari yoon 136 ñetti yoon téléspectateur Ladoum TV ñu ñëw ci poids bi 157 virgule 1 kilo téléspectateur Ladoum TV yéen a ko déggandoo yéen a gisandoo. beneen maal bu nga xamante ni si na ñu ngi noonu di ko takk waaw ñu ngi noonu di ko takk. ñu koy tàgg noonu gars yi di wax naan béjjën yi day laal wala béjjën yi du laal ngir noonu ñu ngi koy yeew waa jaa ngi koy jaay doole ñu koy takk-takk bu dëgër téléspectateur Ladoum TV yéen a ngi koy am fi nga xamante ni si mooy CICES mooy quatorzième édition Saladam 2023 macha allah. mu ngi toll ci 30 mois waajaa ngi koy yeew waajaa ngi koy yeew yeew bu dëgër mi ngi jóge ci box numéro 191 macha allah ñu ngi noonu waaw ñu ngi noonu foofu nga xamante ni si fa la ñuy teg li nga xam ne mooy weñ bi ci dënn bi pour mën ko neutraliser pour nga xam ne xar bi du avancer jëm ca kanam arrière rek la mën dem ca gannaaw waaye avancer jëm ca kanam du am fenn. téléspectateur Ladoum TV pour xar mi mën a taxaw bu baax a baax nee na sàtt sàttaaral mu ngi jàpp njàmburam macha allah gars yi jaay nañ ko doole gars yi napp nañ ko fi nga xamante ni si mooy ci njatt nay leer bi nag la ko gars yi teg mu ngi ne tekk waaw macha le ngi lay nuyu. nengal di ko tàcc tàccal nga noonu di ko nax kaan ba wàcc na baa ngi noonu di wàcc waaw mi ngi noonu ñu ngi natt euh, garo bi kaan baa ngi noonu wàcce ca garo ba ñu ngi wàccee yéegal waaye tey waa ji nee na yëkkati na loxoom ndax validé nañu wàcce waat nañu yéegal waaw wàcce nañ ko waa ji nee na ndax nangu ngeen wàcce waat na yéegalaat macha allah gars yi nangu nañu macha allah wàcce waat na ko mi ngi noonu mi noonu ñu ngi xool fan la taxawee auteur au garo bi téléspectateur Ladoum TV yéen a ngi koy am fi nga xamante ne si mooy si CES quatorzième Saladam waaw ñu ngi noonu di natt LCS bi longueur cervico sacral bi moom la ñuy natt ña ngi koy commencé ci diggante ñaari béjjén yi wàcc ba ci saxu geen nga. nga noonu nga noonu. waaw doon na ñu koy ñu fa nga xamante ni si mooy catu geen ga saxu geen ga fa mu commencé ca car geen ga ngi noonu centimètre baa nga noonu nañ ko ca kaw waaw ma ngay yëngu mu ngay yëngu mu ngay bañ waaye xar bi nanguwul taxaw xar bi nanguwul taxaw benn yoon ba naa ba ñu nattee hauteur bi ba pare pour ñu natte LCS bi daal nanguwul taxaw benn yoon waaw ñu ngi ci box numéro 191 mooy maal bi nga xam ne moom lañ doon natt léegi moom ni la ñu joxe macération ngi toll si 32 mois waaw moom natt nañu hauteur au bi am na ñaar yoon 109 benn bi 109 point 5 ñu dem ci LCS bi ñu ngi ci LCS bi am na ñaari yoon 154 benn bi 154 point 5 ñu ñëw ci TP bi am na 127 euh, ñetti yoon ci TP bi waaw ñu ñëw ci poids bi am na 141 point 8 kilo waaw kooku ñuy waaj a jël ay mensuration mooy box numéro 133. waaw box numéro 133 box numéro 133 la jóge mi ngi am 33 mois moom la ñuy waaj a dugal noonu mi ngi noonu ñuy dugal pour jël ay mensuration téléspectateur Ladoum TV. sànq mu nekk box numéro 45 am 30 mois. waaw ci hauteur au garab bi am na ñetti yoon 108 centimètres LCS bi la ñuy ñëw noon am na ñetti yoon 156 point 5 centimètres am na ñu ñëw ci TP bi waaw TP bi am na 131 point 5 centimètres point 5 moom la am ñetti yoon ñu ñëw ci poids bi 140 moom la am 140 point 8 kilos moom la am ci poids bi waaw moom ci hauteur bi mi ngi am ñetti yoon 116 point cinq centimètres ñu ñëw ci LCS bi LCS bi am na benn bu nga xamante ne si 156 point cinq centimètres yeneen ñaari 156 la am centimètres TP bi 123 point cinq la am waaw poids bi am na 119 kooku ñu natt léegi mi ngi jugee LCS bi hauteur euh, Garo am na 112 ñetti yoon point 5 112 point 5 yoon LCS bi am na ñetti yoon 154 point centimètres TP bi am na ñetti yoon 130 centimètres poids bi amna na 138 kilos. si mois la am. hauteur au garrot mi ngi am mi ngi am 115 point 5 centimètres ñetti yoon LCS bi am na ñetti yoon 163 point 5 ci li nga xam ne mooy LCS TP bi TP bi am na ñetti yoon 127 point 5 centimètres poids am na 103 point 5 kilo kilo ko ñu natt léegi mu ngi jóge ci box numéro 73 am 33 mois hauteur bi am na am na ñetti yoon 115 centimètres LCS bi lañuy ñëw noonu 153 bi am na ñetti yoon 153. bi am na ñetti yoon la am 127 ci TP bi ñëw ci poids bi. poids 126,5 am na 126,5 kilos ci poids bi. waaw téléspectateur Ladoum TV ñoo ngi am mbégte ak contentement ba léegi ñi ngi fii ci CICES mu nekk quatorzième édition Saladam waaw tey 2023 bon ñi ngi nekk ci concours bi nga xamante ni si mooy concours mâle adulte yi waa premier loo jàll na macha allah gars yi natt nañu xar yi natt bu jaar yoon tubaar fakàlla déggaguñu fi benn yoon lu ñuy wax contestation ñi ngi ci deuxième lot bi xar yaa ngi nii di ñëw sama ginnaaw tubaab fakkal la ñu fas yéene leen yóbbu ñoom tamit fële gis nga xar yi ni ñu rafetee macha allah téléspectateur Ladoum TV xam ngeen ni deuxième law bi mi ngi nekk 10 euh, champion fi mu nekk nii am na yeneen champion yu ñëwagul premier lot bi nekkoon na 10 champion mais am na benn bi nga xamante ni si dañ ko génnee kon cela veut dire que neuf champions la ñu am ñu présenté leen ñi nga xamante ni si ñooy champions yi nga xam ne ñoo nekk ci deuxième lot bi téléspectateur Ladoum TV waaw macha allah champion. waaw ah, kii mooy Ballon door kii mooy Ballon door ban équipe la nekkoon Ballon door ba jël Ballon waaw Ballon door boo déggee ma ne Ballon d'or Ballon d'or Sadio Mané bu njëkk ba. moom laa ko tuddee. téléspectateur Ladoum TV. kii ballon d'or la tudd mi ngi jugee ban box. ak mi ngi toll si ñaata mois. 58 la jógee box 58. waaw bergerie bi nag mi ngi nekk Bayna Touré Touba Xeera. waaw mais ah, 58 la. 58 moom mi ngi toll si ñaata mois. ah mi ngi am 42 mois. 42 mois kii di Ballon d'Or ñu tuddee ko Ballon d'Or ci premier édition bi nga xamante ni si Sadio Mané waroon na laal Ballon door malheureusement laalu ko tey loolu nar ak gars yi waaw xanaa jéem rek comme ni ma koy waxee saa su ne rek ah, jéem rek comme lu ñëpp bokk a ah, nañ jéem a xool nuñ koy def rek. dans le fair play téléspectateur Ladoum TV yéen a gisandoo ba tey am na beneen maal beneen champion macha allah oh il est très beau champion kii mooy waaw kilifa gi kii mooy grain d'or. grain d'or macha allah kii lu mu jur or la lu mu jur or la lu mu jur or la mi ngi jóge ci ban box ak mi ngi toll si ñaata moom. grain d'or mi ngi jóge si box 76. waaw mais xoolal ma waa ji boobu la yëngal rek booy bi nar a daanu nga xam ne grain d'or du ay caaxaan du ay foo ah macha allah oh mi ngi manoeuvrer booy bi. mi ngi koy manoeuvrer ba booy ba dàll ba summee ko xam nga ni kii du ay caaxaan du ay foo macha allah. nga ne mi ngi jóge ci ban box. Ladoum TV xaaral ma taxaw nii ba mu paree mu neutraliser ko ba mu pare nga xam ni kii li mu yor macha allah grain d'or mi oh moom mi ngi toll si ñaata mois. grain actuellement mi ngi si 32 mois. 32 mois lu mu nar ak gaay ah non day foo si rek moom moom ñëwul pour concours mais dafa ñëw pour. xam mensuration rek ñibbi. téléspectateur Ladoum TV kii di Ballon d'Or dafa ñëw pour gars yi xool ay mensuration am macha allah ñu ñëwaat ci beneen champion beneen daanaan oxo kii mooy kan. kii mooy Boy Dégol. booy. Boy Dégol. Boy Dégol. moom mi ngi jugee ban box. bo box 76. box 76 moom mi ngi toll si ñaata mois. 29 mois. 29 mois macha allah loo nar a gars yi. da dama ñëw foofu si rek. dafa ñëw pour foos yi di jox gars yi ay cadeau di lool lambe di dóor dàqe téléspectateur Ladoum TV. téléspectateur Ladoum TV waaw beneen champion ngi nii macha allah def rob bu weex ki may mooy réew mi. réew mi ban réew la ban réew. Sénégal. réew maa ngi nii mi ngi jugee ban box ak mi ngi toll si ñaata mois. box euh, box 112 moo ci 30 mois. jógee na ba Fatick nag. macha allah kii dafa jóge ba Fatick. ñëw Ndakaaru pour jongante si. war a wàccee gaay wala gaay wàccee ko. <laughs> waaw war a wàccee gaay rek. téléspectateur Ladoum TV nee na war a wàccee gaay kon xam nga ne lii ay foo lii ay caaxaan macha allah ñu gis beneen champion beneen daanaan kii mooy kan. ah kii mooy kan. waaw. sa waay yow yaa ngi may gis. ça quatre yow yaa ngi may gis. man baaraam laa la war. déggul olof de déggul olof. nee na déggul olof yow noo tudd. Ah? tudd. yow lan nga dégg. dëgg la waaw. Eh, kii pulaar la te pulaar man mënumaa wax ak pulaar waaw man ma nekk pulaar mënumaa wax ak moom kon nag ah téléspectateur Ladoum TV du jamais vu pulaar bu taxaw ak pulaar te mënumaa wax ak moom ah xar bi nu mu tudd. téléspectateur Ladoum TV fii la xewee fi nga xamante ni si mooy quatorzième édition Saladam macha allah macha allah 2023 ah, macha allah champion. pël bi xamul nu mu tudd dégg loolof man pël laa dégguma dégguma pulaar kii mooy kan ah, kii mooy Rachid Rachid moom ban box la jóge 123 euh, 123 mi ngi toll si ñaata mois Rachid Rachid dañu toll si 48 mois lool nar ak gars yi tey ah ñëw jël si ndam li rek ñëw jël si ndam li Rachid dafa ñëw pour jël si ndam li téléspectateur Ladoum TV bu ngeen xoolee Rachid mi oh seen xol day sedd da ngeen ne kontaan ah. moo ñu jugee ba Mauritanie. oh téléspectateur Ladoum TV kii mi ngi jugee ba Mauritanie kii mi ngi jugee ba Mauritanie ca sous région ba dafa xuus jàll. ñëw ñëw Ndakaaru war a war a def nag. waaw macha allah téléspectateur Ladoum TV xolama bi champion. oh il est très beau très beau champion bi macha allah kii mooy ban box la jógee. 53. box numéro 153. 53 53 box boobu mi ngi toll si ñaata mois. mi ngi si 17 mois. 17 mois kii lu mu nar ak gars yi tey. non damay ñëw évaluer rek pour xam samay mensuration. kii dafa ñëw pour gars yi natt ko ñu xool lan la am macha allah téléspectateur Ladoum TV 14e édition Saladam waaye am na benn xar bu ñëw mais bi muy ñëw dafa am benn jongama bu ko àndal. jongama bi moo ko bunge ba mu yegsi macha allah téléspectateur Ladoum TV jongama jaa ngi na la di dem oxo dafa bañ a ñëw waaye dañ ko iri lii mooy iri dañ ko iri mu ànd ak moom di ñëw téléspectateur Ladoum TV oxo éleveurs yi daal non éleveurs yi ay ndaanaan lañ éleveurs duñu ay foo éleveurs duñu ay caaxaan système lañu am système bi nga xamante ni si xar mi daa bañ a ñëw ñu iri ko comme comme benn booy iri wër la xar mi dañ ko iri indi ko fi tay la ko fi bàyyi ko fi dem xam daal téléspectateur Ladoum TV ñii duñu ay foo ñii ay caa. très beau champion kii mooy kan. kii mooy oncle Ben. kii mooy. oncle Ben. ban box la jógee. mi ngi jógee box numéro 126. mi ngi toll si ñaata mois oncle Ben. 4 ans. 4 10 euh, jours ah. 4 ans 10 jours oncle fukki fan. dina am ñeenti at. kii mooy oncle Ben tey kii lu mu nar ak gars fii. ah mais foo ñoom rek affaire bi kaf foo ree rek jël suñuy macération nee na day ñëw jël si suñuy macération foo ak gaay yi réew ak gaay yi waaw téléspectateur Ladoum TV kooku mooy oncle Ben waa dafa ñëw rek pour jël ay macération am ñëw rek pour foo ak yi ñëw rek pour loolu lambe ak gaay yi nga xam ne daal téléspectateur laadum TV waaye ñun li ñu jaaxal dañoo gis oncle Ben bi muy ñëw daa am benn jongama bu mu àndal man ma ne jongama ji da kaa iri fii ba pare daw bàyyi ko fii loolu pour lan la. non daa nëb xar bi rek <laughs> xam nga boo yoree femelle lu mel noonu maal yëpp bëgg a tëb muy fanaanoog yow di yeewandoog yow. Uh-huh. doo ko nangu doo ko nangu teggi bët. macha allah loolu lay def ak femelle bi. macha allah téléspectateur Ladoum TV loolu am na solo. oxo kooku dafa ñëw ànd ak waa ji waa ji dem di géere ji ànd ak waa ji waa dem ji fubali ji ànd ak waa mu dar ko ba ci géew gi mu wàññeeku ndànk toog kër ga di ko xaar. mu war a ñëw indaale ay maturation indaale ay trophée téléspectateur Ladoum TV lii du ay fo lii ay caaxaan. na benn champion buy ñëw mu ngay tourner gauche mu ngay tourner droit ma ngay daagu oh nee na mbee oh il est très beau. macha allah téléspectateur Ladoum TV 14e édition Saladam xam nga ni lii du ay foo lii ay caaxaan xoolal ma lii xoolal ma xeetu bet yi macha allah. Oh, oh. waaw ba tey beneen champion ngi nii oh xoo il est très beau ki mooy kan. ki mooy Aynoumane. Aynoumane mi ngi jógee ban box. 122. 122 mi ngi toll si ñaata mois. 38 mois. 38 mois kii lu mu nar ak gars yi tey. ah kii tey dafa nar a xeex rek. dafa nar a ñëw xeex mbaa duñ ko dóor mu wàcc. non xoolal xar bi xar bi macha allah. tubaar fakkaala nee na kenn du ko dóor mu wàcc. daa ñëw pour xeex ak gars yi daa ñëw pour jaay leen doole daa ñëw pour neutraliser leen. macha allah macha allah oxo kii mooy kan champion. kii mooy Tokyo. Tokyo moom fan la jóge Tokyo la jóge ban box la nekk. waaw ah, mi ngi nekk boks SN8 macha allah moom mi ngi toll si ñaata mois. mi ngi si 26 mois. 26 mois kii dafa nara a ñëw tey a gars yi lan la war a def. jaxase kàddu gi rek bëgg a jaaroon ak gars yi fi ma jaaraan ak bàyyam rek. <laughs> téléspectateur Ladoum TV macha allah kooku mooy Tokyo mu ñëw nag fii war a jaar fi nga xamante ni si fi la bàyyam jaaroon téléspectateur Ladoum TV 14e édition Saladam 2023. macha allah macha allah xar yi rafet nañu xar yi am nañu mensuration xam xar yi daal au rendez xar yaa ngi fatt taraj xar yaa ngi jongama xar yaa ngi leer xar yaa ngi belli oxo lii du ay fo lii du ay caaxaan téléspectateur Ladoum TV macha allah macha allah macha allah lii di quatorzième édition Saladam 2023 fii ci CICES e télé askan bi nga ne lan nga ni nga ni télé askan laa la kan mooy télé askan bi TV mooy suñu télé jaajëf